Grand Médine ci booru pont de l'émergence tey ci suba waa gox boobule dañoo yeewu ak mbir mu doy waar ab néew la ñu fekk ci biir ndox mi mu tëmb si noonee ñu daal di fay doxantu rek tàllal suñu micro ay ñu ko fekkee daal di euh, addu laaj leen nan la mbir yi demee ñu déglu leen

ñu loolu lañ ci am mais daal li ñu mën a wax leneen mooy dañoo bëgg surtout fii ci pont bi pont bi bu guddee booy fii la ñuy costé oto bu romb ñu ubbi la jël sa portable ñu la wax nag ne la ñaata nit la ñu jël seen portable tey boo ko doon waxagulee mun doo xam ñaata la quoi maanaam booy dañuy tëdd gis nga virage ngay jël code pour jàdd nii la booy benn booy tëdd daw ubbi sa porte oto yow sëfa bi sax yaa koy xam ba ni ko sa portable dee ko fay ndax écran gudd xam day leer ci biir oto bi dañ koy xam quoi dañu xam ne ki yor dara waaw léegi mu bëgg état bi dimbaliñ ci lii daal gis nga ki fi mujj dee nii tey mun naa ni kii moo fi mujj am suñu benn ko xam ne fii lañ fii grand bi bi la dëkkoon fii lañ ko rayee fii chaque fois daal yi daf fii am dañoo bëgg nag état bi jàppalañ ci lii mu jóg fii quoi waaw léegi non bi bi waa ji faatoo euh, pompier dafa teel a ñëw wala nu mu demee kan moo ko kan moo ko gis wala nit ñee ko gis woo sapeur pompier ma ko bi koy bi ñu koy jël man fekkuma fi man bi ma ñëw sax deema saani wax dëgg yàlla ñi demoon ñëw rendama compte man li ma gën a métti daal mooy pont bi li fi am na fi jóg te nguur gi mën na ko dindi nañ ci dimbali parce que nit mënu yor alalam xam nga ki tey mën nañ ko rey ci alalam ndax mën na fi jaar guddi dem yoonam gars yi bëgg ko agressé mu riposté gars yi jël ba kanam xam nga te alalam la moo ko liggéey te surtout nag askan bi euh, nguur gi moo ko yor quoi nañu fi dimbali baax a baax nañu dimbali fii parce que du bii rek tey bu doon yi fi am yëpp ay meurtre c' est incalculable si fii nii yow lan nga xalaat fii nii que ñu génnee ko wala ñu def ci sécurité policiers yi ñëw di teew di def ay ronde wala. xam nga policier bu solee tenue du jàpp kenn il faut tamit ñu wax dëgg quoi gars yi nañ dem ci front bi quoi dem ci suuf dox jaxasoo booy yi ñu lay taximaan lañ dañuy gis booy buy dox mi kii day def mais yow mënoo ko jàpp civil nga comme moom booy yi làqu fii damay romb client man leen kii kii kii tax kii nii lu mu sàcc lay wër mais mënuloo ko dara tey mënoo woo police na amoo seen numéro foo leen di woowee. te day xam ni kii loolu bëgg dem dama leen fi benn waay fii ma ni booy dañuy def dañuy sàcc dama dama def cent mètres laa def ñu ubbi ñu jël portable am ma ma gestu ne ko gis nga li ma la wax booy yi laqatu woon foofu ñu jël portable jaar suuf bàyyi dañuy jaar daw dem te waay mënu fa jaar ndax pongal la te ay booy ndaw ñu koy këf dañ lay romb mel ni kuy def dara yow nga ne sa téléphone ngay fàttali lépp quoi ñu ne ko coppe daal di koy yóbbu ñu daal li ñu bëgg mooy poste 92 nañu ci dimbali nañu ci dimbali am nañ bi ñoom mën nañ ko mën nañ ci am nañ moyen yi dañ ko def fii xam nga ay caméra de surveillance bu nekkoon fii lamp yi leer nañ booy li ñu def ñu ko fi def xool arrangé nga yéeg pont bi jël code di tourné benn waay tëdd nga ñëw ba yéeg gis mu supportable bi tàkk mu ne ubbi porte oto bi yow yaa bëgg dawal bëgg protéger client bi ah xam nga loolu du dem du mu nekk yow sa bopp yaa ngi wut noo muccee client bi yaa mu mucc nañ si dimbali daal nañ si dimbali mbir ah man nag xaw ma nu mu demee carrément de mais li ma fekkee rek laa mën a wax

mais ñax bi dafa bëri dafa bëri ñax carrément canal bi bu ñu mënee dimbalee ñax bi gars yi di ko fobeeree même bu nekkut sax waaw nawet sax muy set mais nag nawet moo ci ëpp solo ndax nawet bi ñax bi day bëri trop après si lañ nekk foofu après si laa taxaw ne kan moo njëkk a gis lii peut-être xaw ma dégg naa ñu ne benn grand ne moo ko njëkk a gis laajte lii lu mu da ñii ne déedéet ay maire ñoo ci réewam mais man

mais loolu nag dañoo ump wasalaam man nag lii rek laa amoon ci ay kàddu yu ma ci wax quoi sécurité bi nag bu ñu ci mënee dimbale ah ñu dimbale ci ñu ne ñu nag yokku ndimbal li ndax nit ki bu ñu lay dimbale day fekk ndimbal da ciy fekk loxol borom daal. acca merci jërëjëf.